xamante ne nii léegi rek maa ngi koy wax nga xam ne bi ñu yàlla boolee ba léegi dafa nekk jëmm joo xam ne kenn la ci man dinaa ci ñëwaat nag bu ma ko nuyoo ba noppi mooy Maulana Chérif Mouhamad Ali Aydara yàlla dogalit ab taawam nekk ni toog muy Maulana Chérif Hassan Haydara di ko jox wàccuwaayam waaye it di ko ziyaar waaye di ko yóbbante ziyaar ci waajuram mu tedd wa muy Maulana Chérif Mouhamad Ali Aydara di ziar suñu xarit suñu wóllëre suñu lépp muy sëriñ Cheikhouna Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadul Mourtada ibnu Cheikhina Ahmad al Khadim sëriñ Cheikhouna yow ziar bi yow lañ ci war a jiital yow yaay kilifa ak jataay bi kon nag ñu ngi lay bu baax di la ziar bu baax waaye di la wàccee sa wàccuwaay nga nekk nit koo xamante nii tamit. ñun lenn saa yi man de ku mel ne man maa lay wàcce samay coono ndax xam naa ne saa su ma la bëggee yëkkati dooma tànqam la saa su ma la woowee téléphone foo nekk ak loo nekk di ko bàyyi ñëw ca la may def waaye nag ñu may la lépp nga jël lépp it baaxut kon ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax di la jox sa wàccuwaay di ziar it suñu xarit suñu wëlëre moo xamante tamit sama mbokk sama lépp muy sëriñ Cheikhouna Mbacke ibnu sëriñ Hamidoun ibnu sëriñ Modou Mamoun ibnu Mame Cheikh Anta di la ziar bu baax sëriñ Cheikhouna di la wàccee it sa wàccuwaay di la wax ne it nit ku baax ku mën a sàmm kóllëre nga lii ma wax ci sëriñ Cheikhouna am sëriñ Mourtada loolu rek lay wax ci yow loo ne dinga ma ko wax waaye it ma it lu ma ne dinaa la ko wax waaye it fu ma la soxlaa nga bàyyi sa itte yëpp daw ñëw ku ne xam na ne jamono ji xat na te it yéen xam naa seeni tolluwaay bu baax a baax a baax comme que ñun nii la jamono xat ci ñun yéeni tamit waxi nopp kon ñu ngi lay nuyu bu baax Serigne Cheikhouna waaye di nuyu it nag suñu xarit suñu goro suñu lépp suñu wëlëre muy Serigne Jili Mbacke ibnu Serigne Abdam Abdourahman ibnu Serigne Madje nga xam ne sama rakk bu jigéen bu mu bokkal ndey ak bàyyi soxna Xadi sëriñ Jiili moo koy denc moom tamit ñu ngi ci jataay bi depuis démb la ànd ak sëriñ Moustapha teew sëriñ Jiili yow ñu ngi lay ziar bu baax waaye it di la wàcce sa wàccuwaay di la ñaanal nit nag yàlla na la suñu borom gën a dooleel te kàttanal la di ziar nag suñu xaritu bopp koo xamante ni bii moom tamit kasaalika li ma wax ci sama bokk yi sant Mbàkke loolu laay wax ci moom muy sëriñ Moulay si mii toog nga xam ne doyoon na sëkk rek mu xam ne moom am na cër bu mat sëkk mu jël cër booba daal di toog fam ko amee ndax bu fa toogee it lépp fekk ko fa ndax ku ne xam na ne euh, liggéeyal maanaam waaju baax rek des na jariñoo ñaq woowu nga ñaqal waaju baax rawatina nag yow nga soqi koo ci waaju baax te moom sëtu moom alxaaji Malik la kon nak ñu ngi lay nuyu bu baax Serigne Moulay di la sante ci sa disponibilité yow it jotaay Nah min na la ndax barki dembo ndjay Adja mi nga mom la def ndey bis bi ren ji barki dembo ndjay rek la organisé fii tàkkusaanu yonent bi sallallahu Alaihi Wasallam, mami Serif hasan mi nga bàyyi ko Tiwaawoon ànd ak say rak ñew tew ci tay ji bobak legi matagul 2 semaines tey jii it ma yëkkateeti la nga bàyyeekoo waat ci waawoon ànd ak ñi nga àndal ñëwaat teew kon nag yow mel na ni diine ñor na la lool waaye nag samaam de moom diine jamu ko kon nag yow it boo doxalee noonu wàcc nga kon ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di delluwaat di nuyuwaat suñu suñu rakk suñu suñu xarit suñu lépp muy. Euh, sëriñ xaadi Mbàkke ibnu sëriñ Subayru ibnu maam Cerno Ibrahima Fati sëriñ xaadi mi ngi lay ziar bu baax di la nuyu di la wàcce wi sa wàccuwaay wi nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala moom moo la ko jox sëriñ Tuubaa Cheikh Mat Bamba Xaadimu Rasuul moo la ko jox yow it nag ngay nit bu baax di suñu rakk waaye it nag yàqoo dara maanaam foo toll luñ la fuñ geestoo buñ la soxlaa gis nga ci suñu wet bu la neexoon nga doxee neneen wala nga doxale neneen waaye defoo ko jërëjëf kon Mbàkke ñu ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay yow it ziar it suñu rakki bopp ji nga xam ne ñoo bokk ak Cheikh Mouhamad Mbàkke Ñaxar muy Seydina Omar bi ngi nii toog yàlla dogal ñu bokk gox bi yàlla dogal ñu bokk géejawaay yàlla dogalit ñu bokk njaboot gi yàlla dogalit ñu bokk ay donga waaye ñu bokk it nag ku ñu yilif ñu bokk ku ñu yilif moom it ñu ngi koy nuyu bu baax di ko jox wàccuwaayam bi nga xam ne moom la ko maam Serigne Touba Cheikh mu Bamba Khadimou Rassoul jox waaye it euh, doy na sëkk rek ci misaal léegi rek Serigne yi dafa ñëw ma ne ko ma ne ko wàccal jox ko mu toog mu daal di wàcc toog ci suuf jox ko mu toog loolu doy na sëkk loolu doy na sëkk doy na sëkk barke seede ci ni nga xam ne waajuróom wu tedd woowu muy Serigne Modou Mbacke Niakhar noonu la ñu yare ñun ñëpp gan bu doon ñëw. bu ko sëñ Moustapha Séné ne sañ na ne ma wàccal ci suuf jox ko mu toog te duma ci teg baat kon nag noonu la ñu yare kon Seydina Omar yow ñu ngi lay nuyu di la sargal njaboot gi it kenn desut ñëpp teew nañ gis naa xale yëpp ñëpp teew nañ tabarkal kon it yow it ñu lay sant ci sa taxawaay di la gërëm bu baax waaye it tabarkal daal di la ñaanal yàlla suñu borom defal la feex li nga yéene lépp ci sa liggéeyu maam bi sëñ Tuubaa Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul suñu borom defal la ci lu kaw sa noonu la ñuy bàyyeekoo ci moom it di nuyu rakk yëpp nag maanaam sëriñ Jiili Mbàkke mi ngi fi moom sëriñ Mouhamadou Mbàkke ñaaxar ñu bokk waajur sëriñ Ibrahima Mbàkke mi ngi fi moom sëriñ Mouhamadou Mbàkke ñaaxar ñu bokkati waajur bu ko defee tamit sëriñ Moustapha Mbàkke burhanakum tamit mi ngi nii toog di suñu xarit di koo xamante ne nii maanaam moom it tabarkal la lu ñu woote buñu gëstoo gis ko suñu wet waaye it nag bokk sëriñ Cheikh Mbàkke it di suñu jarbaat di doomi sëriñ Fallu Mbàkke mu Serigne abdou oumi Mbake, sering Serigne Rahman, ibnu Cheikh Ahmadou Ndoumé Xabbaan Serigne Cheikh tamit yow ñu ngi lay nuyu bu baax di la gërëm waye yit maa ngi maa ngi mel ne euh, damay mujjé ñi nga xamné ñom sax la wara ñu muy wa Serigne Cheikh taway Serigne Serigne abdou Ahad Mbake, mi ngi fi and ak rakam Serigne sangi bu Mbacké mu melne yit Sin sëñ Cheikhouna Tawa digganteem ak sëñ Modou Mbacké Ñaaxar ndax sëñ Cheikhouna Tawa sëñ Ibrahima sëñ Ibrahima jëmm Cheikh Ahmad Ndour may mu mel ne yàlla dafa dogal moom sëñ Modou Ñaaxar ñu amoon kóllëre boo xam ne kóllëre boobu mara day taal maanaam maanaam jafe na ndawi jamono ji di àndee ànd bu mel noonu mu mel ne it nag kon sëñ yow it ngi ciy doxal lu ma sëkk bàyyi benn yoon mu mel ne it nag dinañ fàttaliku nag ci ci tudd gi ñu tudd sëñ Abdou Lahad ak rakkam ju baax jooju di sëriñ Sohaybu sëriñ Jiili Mbàkke xaban ibnu sëriñ Abdourahman ah sëriñ ah, Abdou Abdou Abdou Assou Ndiaye mu sëriñ Abdourahman ibnu Cheikh Ahmadou Ndoumé Xabaan sëriñ Jili Xabaan jataay bii ñoo ko daan bokk yaakaar naa war naa toll ci daaw ak ren mu wóote ko suñu borom dogal li gën ci moom ah, na ko yàlla teeroo àjjana oh, yàggal ñaanam tamit suñu loxo mu nekkoon nit koo xam ne waxtu wu ñu wootee jataay bi waxtu wu ñu wootee jotaay bi rek dafay ñëw àndandoo ko ak ñun ba jeex kon nag du dañ ci sunuy xol waaye du dañ ci suñuy xel ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko suñu borom teeroo ajjanay firdaws yàggal ñaanam tamit ci sunuy loxo ñun bokk yépp nag ndax jëmm ju baax la woon jëmm ju disponible la woon jëmm la woon joo xamante ni ku bëgg xam-xam nag te nangoo jaamu yàlla lool yal na ko yàlla teeroo àjjana mu mel ne it li ko dal noonu dal na yit suñu rakk joo xam ne jóge na fi bërki dee moo jaay rek muy sëriñ Abdourahman Mbacke ibnu sëriñ Fàllu mu sëñ Abdou Mbar mu sëñ Balla Coro moom it bërki dee moo njaay rek moo tëggul deux semaine trois la fi jóge nga xam ne le 6 bii passé le 6 avril la doon def cant fii ci rond point marché jeudi ma carte d'invitation bi ba ci man ba ci saal sama saal toog wéeru ma xelal ko café mu naan ma ne ko toogal ci matelas bi ma foog ne cër bi mu ma jox moo tax mu nangu wut a toog ci matelas bi mu toog ci moquette man sëñ bi toogal ci matelas bi mu ne déedéet fii baax na ma ne ko kon toogal ci matelas bi man ma toog ci piliaan bi yow nga toog ci matba bi parce que moquette bi dafa wow mun ma déedéet mbàkke fii ma toog baax na même soo jógee toog ci pédaan bi tamit man ci moquette bi laay toog daal wéeru ma xellu café mu naan bi mu naanee ba pare daal di génne carte d'invitation bi jox ma ni ma bi nag sa bis la muy le 6 bi passé avril le 6 avril ni bis bi de sa bis la te bu ma sañoon nga teew ca ma ne ko waa baax na incha allahu rabbi dinaa ca teew de yàlla dogal mu wéeru ba yàgg mu ne ma sëñ bi man war ngeen maa ñaanal de temps yi wéeru ma dara ma ne ko suñu Tuubaa amul morom dina baax yàlla dogal bi ñu defee bis bi bis bi dellusiwul ñaari ay bis suñu borom moom ko fii mu nekkoon ci deux voies yi di noppaleeku ngir cant yi mu jógee coono bi foofa la ko suñu boroom fekk def ay dogalam ci moom ñu yóbbu ko Tuubaa denc ko kon nag jamono ngi nii joo xam ne li des rek mooy njëkkalante lu baax gis nga ñii ma leen tudd sëñ Jili Xabaan moo ma magoon waaye sëñ Abdourahman maa ko mag kon yàlla bés bu yàlla sàkk dafay jëlee ku la mag waaye dafay jëlee tamit koo mag kon nag yow mi fi des léegi loolu yeete la ci yow ci nga gën a góorgóorlu loo man xam ne kat suñu borom moom ku mu jiital te desal la yow rek may na la beneen sens boo war a dellu si waatee nag tuubaat say bàkkaar te dolliwaat renforcer waat sa jaamu yàlla kon nag mbokk nañu fonkante nañu jàppante nañu wóoluwante waaye it nañu bëggante lu ama am solo la lool kon nag moom it ñu ngi ko ñaanal yàlla waaye it di ñaanal yàlla sëriñ Cheikh Béthio Thioune mi nga xam ne it euh, démb rek lañ ko doon denc Touba moom it mu nekkoon jàmbaari Serigne Touba Serigne Saliou nekkoon nit koo xam ne it wax dëgg yàlla ku ne xam na ne jàmbaar la ci yoonu murit kon moom it na ko suñu borom teeroo àjjanay Firdaws dajale ko sangam bu tedd ba Serigne Saliou mu jàpp ci loxoom teg ko ci loxol Serigne Touba. moom ko dëkk àjjana kon daal euh, bokk yi ñu ngi nuyuwaat tamit bokk yi bokk yi nga xam ne ñooy bokki waajur wu jigéen wi muy soxna Fama Diop bokki daaru Xaddim mi ñoom ñi ngi fi kenn desul muy waa kër Cheikh Ahmadou Ndiaye euh, wax na ko léegi dafa dogal waajur wu jigéen sët suñ euh, yàlla dogal nag kii nga ñii nga xam ne ñoom ñoo ko fi nekkal di njabootam jugee nañ Daaru Xaddiim jaar Touba jóge Touba ñëw Ndakaaru te ku ne xam na ne masaafa bu sore kon nag ñoom it muy Serigne Mamoun Diop ak Serigne Amdi Moustapha Diop ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant waaye yëpp di leen jot li nuyoo bu ñu delloo ñu jot li ñu suñu nijaay ya nekk ca Daaru Xaddiim jot li ñu leen suñu cant ak suñu ngërëm ak tamit suñu cofeelu mbokk ci ñoom. kon ñu ngi leen di nuyu bu baax waaye it nuyu it suñu nijaay yi bokk na li nga xam ne moom moog suñu wajuru jigéen ñoo bokk ndaay ak baay muy Serigne Thierno Diop. di ko gërëm ci taxawaayam mu nekk jëmm ju woyof joo xam ne mënoon naa jàpp ne ay jarbaatam lañ rek waaye lu ñu woote bu ñu geestoo gis mu ànd ak njabootam gépp teew ci suñu wet euh, woote nag mbokk yëpp teew loolu moom maanaam mbégte lay dolli kon nag ñu ngi leen di sant bu baax waaye di sant Serigne Abdou Jalil Diop it suñu nijaay. di ko sant bu baax di ko gërëm bu defee tamit di dolliwaat cant tamit ci délégation yi fi teew yëpp mu mel na it euh, madame la maire Aminata Kanté faaw ma jottali sama kàddu yu cant it ci moom balaa daraa xew Adja Astou nag dafa mel ne arab dafay wax ne loo loo koo gën a bëgg loo gën a bëgg da koy jàpp di ko wër di ko wër di ko wër di ko wër ba nga xam ne boo ca accès rek ñëpp ko danañ xam ne loolu nga gën a bëgg waaye loolu moo ma dal sama digganteeg moom maanaam maa ngi jiital nuyoo rek waaye moom dama koy sakkanal ndax li ma war a wax ci moom tabarkal la ndax euh, wax ju bari de xam naa ne sax am na ñoo xam ne mën nañoo jortu ne wax ju bari la waaye nag damay bañ la daloon waaj a dal ma dégg naa waa ji dafa am am tudd léegi xarit bi ànd ak moom daral jëndal ko xar mu mag xar mi tabarkal la légui bi nga ko jëndalee xar mi ñu and indi ko ci kër gi ray ko ci tuddu mi bi ñu ko rayé ci tuddu mi ba nopi légui waji jël micro bi di sant ñi téw sant mbokk yi di sant di sant ba agsi ci kiko jëndal xar mi da ne ko diw yow nak sama digënté ak yow li nga ma défal yalla rek la lay bayé sama digënté ak yow moom liñ jëflanté duma ko tuddu ci ab radio dama lay ak yalla rek suñu borom fay la waji yi daal di jox daal di koy ab micro bi daal di ne ko sallaaw sax de loolu yi nga wax dëgg gu wér keng la waaye it nag maanaam xar ma mën a jëndal ca daral ga su ma gisoon xar ma ko ëpp sallaahu dama koy jënd ñu ray ko ci sa tudd mi ah waaw du moom tuddul xar ma moom mu am fullay tuddul boppam xar ma ngir ñëpp xam ne it moo ko jëndal xar waaye it loolu laay bañ it nag maanaam mu dal ñu suñu digganteeg ñenn ñi loolu moo tax tamit gërëm gërëmaat tudd tuddaat tamit loolu wàññiwul dara mu na ne kon soxna Astou mu ngi lay santaat bu baax a baax a baax di la gërëmaat bu baax a baax a baax di amaat mbégte tamit ci ci ci sa taxawaay ci koñ bii Astou fu diine wootee ronu na ko bu guddi jotee mi ngi ci kër yi di dox lu baax Astou ku fay jëli na la góor bu jabaram dem soññ na la ngir nga dem jëli ko góor gu amul soxna mi ngi lay soññ ngir nga dem takk ji soxna kuy wëndeelu mu ngi lay soññ nga dem liggéey kuy nekk ci lu dul yoon ma ngi lay soññ ne tegul ci yoon ndax waajur yi nangam ak nangam nangam ba noppi tamit di dox ci social di dimbali ñëpp kon nag astu ñu ngi lay sant waaye it di gërëm sa doom jooju nga dendal muy astu juuf ndax ku ne xam na ne digganteem ak soxna as yëpp si jamil soxna as yi bisimilah si ceex na jërëjëf Mbacke buñ sañoon nga ñaanal ñu waaye amul solo xam naa jotaay bee xat waaye jërëjëf Mbacke jërëjëf génneel ma suñu ceex na waaw jërëjëf jërëjëf Mbacke sant nañ bu baax na jërëjëf jërëjëf bu ko defee tamit mu mel ni ñu ñu wéyal jataay bi rek euh, euh, Chérif Hassan sànq rek bi fi télé yi teewee wax naa sama diggante ak Chérif Mouhamad Ali ndax tamit maanaam ñoom dañ maa laaj nag dañ maa laaj ne ma maanaam bis bi bi nga ko dooree ba léegi kan mooy sa partenaire bu lay jàppale loolu lañ ma laaj kat bañ ma ko laajee nag ma tudd leen jënn jëmm dong muy Maulana Chérif Mouhamad Ali Aydara moom mooy jëmm joo xam ne bu ngeen gisee toog waxtaan nga jël carte d'invitation bi ne ko jàbb ci ab loxoom mu yëkkati ay millions teg ci sa loxo nga dem defar sa bis ba ba moom mooy tax du dootoo namati dara ci àdduna ñaari junni ñaari junni yi ma doon maye yëpp ca million yooyee la bàyyi ko waaw du gis ngeen ko ñaari junni yi ma doon maye ñaari junni yëpp sa bët bu suufa nga ci ma ñaari junni ca moom la kon nag Chérif sëriif ñu ngi lay jottaliwaat suñu cant ci suñu xarit suñu wayjur suñu sëriñ waaye suñu xarit moom dama leen di nettali tuuti te li ma leen di nettali sëriñ Moustapha mii sama mag la ñoo bokk waajur ruus naa wax lu dul dëgg ci kanamam moom mii tamit li may nettali su nekkut noonu ruus naa koo wax ci kanamam gis nga Chérif Mouhamad Ali Cheikh Mouhamadul Mountakha mii nga xam ne moo fi nekkal Serigne sëriñ Touba Cheikh Mat Bamba mu Rassoul ñu ko ñaanal suñu borom yàggal ko lool te wéral ko dafa am fu mu ko teg da ko jox cër am fu mu ko teg te foofu mu ko teg man xam naa ci dara doomam jii xam na ci dara waaye dañ naan bëy uude lu mu seede ci bëy ñu ne dara baa tax waaye Serigne Moustapha mi xam na ci li may wax dara mu mel ne ànd nañ man ak moom ak délégation boo xam ne mat nañ fukki parado ak lu topp ñu dem seeti Cheikh Mouhamadul Mountakha booba nekkagul xalifa général de Mouride loolu daaw jéeg la ci weeru koor ñu def bis bii ba noppi yaakaar naa ca gannaaw suba sa wala ca semaine ba ca topp ñu àndandoo Chérif def délégation boo xam ne mat na fukki 4-4 ak lu topp ñu dem seeti ji Cheikh Mouhamadul Mountakha fekk ko jaareem bañ demee keroo teraanga ji maanaam ku ko loo li may wax nii ku ko tàppee Google di nga ko gis ku ko search YouTube di nga ko gis. moy ngan ga digganteem ak cheikh mouhamadul muntaxa seigne muntaxa defal ko teranga jo xamne mara deñ tali tabarkal mom serif moma wax nema ma man damay limay sédé mom deug la de mom moma wax nema ma cheikhuna mangko teranga dund naa teraanga ju ne waaye teraanga ji cheikh mouhamadul muntaxa defal mang ko soga gis mang ko soga gis mom moma wax benen bi ci top moy serigne bi gungé ko ubbil ko barab ba nga xamné fa la Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul wuy jee boromam fa la làqu sëriñ bi gungee ñu dugal ñu fa waaye Chérif ndeysaan waxtu wu ne ci ci tawaadox bi maanaam ci toroxlu gi ak ci woyef gi ak ci yaru gi bañ fay dugg keroog daanaka dañ koo fël dàll yi nanguwu ko faa dugal biñ génnee danoon seet dàll yi ndax nanguwuta dugal dàll yi ca barab bu sedd sell boobee te mënoon na ne yonent bay maamam kat te Serigne Touba nag Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasul bi ñu ko laajee ne ko li nga am noo def ba am ko daf ne nax jël rasuli lazi ma misluhu basharun ndax jun bi fustu bil mafrudi wa sunani daf ne yoonu yonent bi nga xam ne ku ci teg sa tànk te koo teg gi ah raw gaa yu baax yi ci laa teg sama tànk te koo teggi ba jiitu gaa yu baax yi te kenn mënatuma cee seen kon yonent bi mooy lépp kon nag ku muy samaam bu la neexoon nga am noo mel waaye déedéet ñoom meluñ noonu de ñoom ahli bayti nii meluñ noonu de meluñ noonu de beneen ba ko ñaareel ñu ñibbisiwaat ndakaaru keroog bi ñuy ñibbisi sax jaar nañ Thiénaba ci Cheikh Ahmad Tidiane Seck xalifa sëñ ba jaar nañ fa de moom it saafu moom ziar ko euh, ca délégation ba Ahmad Khalifa Niass ci la bokkoon ñu bari ci kilifa yi ci lañ bokkoon yàlla dogal bi ñu ñibbisee Chérif ci mbaax gi ak ci bëggam lu baax ak bëggam yoonu murit ak it xam ne njabootu Sëriñ Tuubaa gi dañ koy béggee ndax njabootu Sëriñ Tuubaa gi moom ku bokk ahlu bayt dañ lay béggee mu jàppaat weneen yoon woo xam ne booba Cheikh Sidi El Mokhtar mi ngi fi mu wax sëñ Muntaxa ne ko dama bëgg a siyaara ji Cheikh Sidi El Mokhtar sëñ Muntaxa ne bu altine àndal ak sa ñi ngay àndal ñëpp ngeen fekk ma daaru minam ca altine ji ñu àndati man ak ñoom ñu dem fekk Cheikh Mamadou Muntaxa daaru minam bañ ko fekkee daaru minam sëñ bi defar ay berneem defar ay xéewalam ñu añ ba noppi ma foog ne dañuy booleek ndaw lu ñu yóbbu ci Seex taxaar ci ndigalam waaye defu ko de dañoo jiite tisbaar ba noppi taal kaat kaatam jiitu ci kanam shérif ak délégation topp ci ginnaawam ñu jëm ko Cheikh Sidi El Moukhtar ñu fekk ko ca kër ga ca gannaaw garas Daaru moo bañ agsee sëñ bi wérut de yaramam sax mayu ko ko woon ci jamono jooju ndax booba ak bi bim làqoo ñaari weer ci lay toll biñ agsee mu Muntaxa ñëw na groupe ci suuf summi mbaxanaam toog yaa ngi dégg ci kanamam moom mii saal bi fees tel sëñ Cheikh Mouhamadou Cheikh Mouhamadou Cheikh Sidel Moukhtar bi muy génn dañ koo lëng biñ annoncé ne shérif ñëw na ziyaare si ko te maanaam Euh, Cheikh Mouhamadoul Mountakha la àndal bi muy génn dañ koo lëng ku ne daa jàpp ci am mbagg waaye daa soox ba ak si toog toog saafu wanteeg Chérif saafu wanteeg Cheikh Mouhamadoul Mountakha saafu wanteeg ñun ñëpp bi mu noppee sëñ Mountakha dafa jox ndaw ne ko waxal ma ngërëm li nga xam ne moom laa gërëm Chérif Mouhamad Ali Aïdara mi ci kanam sama mag ju tedd jii ndax moo fi nekkal suñ Tuubaa kooka wax ba noppi kooka Euh, sëñ Moustapha man damay fàtte tur waaye setu Serigne Saliou la sëñ Saliou moo jur waajuram mu jigéen fàtte naa sax ñun sëñ Aboo Jaxate sëñ Aboo Jaxate keroog sëriñ Aboo Jaxate la mun Mountakha wax ne ko waxal jottali ma sama kàdduy cant ci sëñ Cheikh Sidi El Mokhtar ci Chérif Mouhamad Ali taxawaayam ci diine ak nu mu bëggee suñ tubaax sëñ Aboo Jaxate jottali loola ba pare bi mu ko waxee ba noppi sëñ Mouhamadul Mountakha dafa xeeb. kaddu yi seigne abo jaxate jotuli mom dafa juk jilalat kaddu bopam lepp ngir fonk maulana cheikh mohammed Ali aidar kon nak wax deug yalla waye momit muy ku mata fonk nak muy ku mata fonk ndax yakarna naa keroog bañ fa teewee addi yi jim jox ko Cheikh Sidil Muxtaar enveloppe ba dañ ko jappo ay loxo barke borom tuba benn loxo attunu ko loolu it nag tabarkalla bu ko neexoon moom sëñ bi cër bi maam xool sëñ bi àdduna ñaari cër ñoo fi nekk juddu ak alal xam nga cër moom mbirum àdduna la yaa ngi dégg jaamu yàlla nag leneen la mais bu dee mbirum àdduna lañuy ñuy na ñaari yii ñoo ñoo ñooy fonctionné ci àdduna képp ku ko am loo bëgg mën nga ko am muy juddu ak xaalis ku yónent bi di sa maam ndax mënees naa waxat ci yow dara ci ab juddu déedéet juddu bu baax foofu la yem yaa ngi dégg te nag sama waaje moom ku ko xam-xam ne maanaam li muy dépassé par jour ay millions yu bare bare bare bare bare yàlla xam na ko di ko def ci jaamu yàlla yi ku ko xam-xam loolu kon nag Chérif bu ñuy toog di seede ci sa waajur yenn seede yi maanaam sax dañ ciy bañ a xabaabal moom daal xam nga luñ koy ñaanal am nañ ak ñaan nag mooy suñu borom yàggal ko fi loolu wéral ko sama kóllëre ak moom seytaane bañ cee dugg te nag sama kóllëre ak moom moom mii la Chérif Hassane xaw ma woon waajuram de xaw ma ko woon moom laa xamanteel ñu séq kóllëre di dem lante ak dikk lante kër gi fekk na ma fi ay yoon yoon moom Chérif Hassane mii taal auto ñew fekk ma ci kër gi ñu bokku tok waxtaan naan café ma gungé ko mu génn taal auto dem ñibi def nako ay yoon mom mi ba nim ma bolé booleeg waajuram woowu waajuram tamit jappé ma mom nim ko jappé kon nak Chérif ma ngi lay ñaanal yalla na la suñu borom musal ci chat waye sa wajur ma ngi ko ñaanal yalla nako yalla yagal te ñom tamit dañ ma sopp am nañ ci man jofé di nuyu ñepp nak di gërëm ñëpp di di di di waat encore une fois man samay cadeau lepp cant la daaira soxna jaara yi ak wa koñ bi yëpp wa koñ bi nak aja Asumi mom santal na ma len gërëmal na ma len ba nopi ndax soxna Asumi maa ngi moom ñoo bokk gox bi ak sayyidna Omar mi yalla dogalit manam tabarkal la ñoom euh, euh, bis buñ fi taxawal bisu sayyidna Omar bi non lañ ciy def ñoom ñëpp dañuy mobiliser wu tek teg tew astu da koy àkki sama bés tamit bu jotee kasaalika naka noonu kon nag astu suñu cant ci gox bi ñu ngi la koy teg ci sa loxo nga santal ñu ko suñu waajur yu jigéen yii yëpp waaye di sant sa borom kër Samba Ali damay wax toujours ne sàmba bu jëf rëyee moom la waaye bu noppi baree tamit moom la nit ku noppi te mën a jëf la kon nag sàmba tamit ñi ko ñaanal yàlla yàlla na ko suñu boroom guddal aw fanam te wéral ay cëram te te ngeen yàgg ànd yéen ñaar. te suñu borom musal ko ci seytaane bu ko defee tamit mu mel ne euh, suñu suñu suñuy waajur tamit dañoo bàyyi seen i itte yëpp ñëw teew bàyyi Ibrahima Lo ku ne xam na ne suñu waajur la Baye Ibrahima Lo moom suñu waajur la ku ne xam na li ñu booleeg moom bàyyi Ibrahima Lo gannaaw yàlla su ma nekkul géejawaay di di di di rajaxe yàlla jëmmoon ndax moom nit la koo xam ne waxtu wu nekk ci ak dal la may woo ci ak dal la may yedd ci ak dal la may la may gunge ci ak dal la may xelal ndax bés bu yàlla sàkk tey rek moo ci mujj sëñ Cheikhouna chaque jour dafa may wax ne ma sëriñ Cheikhouna nit su nekkee lu la naqari naqari ñëpp dangay lu la naqari bu ko kenn xam moom dafa may wax loolu toujours yàlla xam na ko léeg nag ma làqatu maanaam révolté wu. bu ko defee del wat mu yedd ma ma ma ne ko waaw man de def nako ko ba nag ko maa ngi nak wax dëgg yalla Baye Ibrahima Lo mang lay sant di la gërëm mu melni ni gogou lay dugal sa taw bi muy pap Moussa Lo pap Musa, mom bisbi, bi mom ci ñi ko coordonné la bok yalla dogal wajur bi sax daf may tooñ daf naan ma yow daal léegi Pape Moussa nangu nama nangu nama ma ci yow mané ko Moussa de Pa Moussa de dafa am woyef gu ma am rek te yow amoo ko waaye yow la fi wuutu kon nag Baye Ibrahima Lo maa ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla li nga bëgg yaa ko xam yal na la ko yàlla defal te defal la fan gudd nag ak wér mu mel ni it Baye Mbaye mi ngi nii toog waaye Baye Omar Seck mi ngi nii toog Baye Mbaye Dieng mu Cheikh Mouhamadou Moustapha Fadilou mi ngi nii toog bu ko defee mu mel na it nag moom it suñu waajur la waaye it lu ñu woote bu ñu gëstoo gis ko ci suñu wet mu mel ne it Baye Omar sekk mi ngi fi bàyyi gàddu loo yónnee na fi maanaam la ak euh, ñëpp rek ah, ñëpp rek bokk yi sant euh, dem tamit maa ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di leen di leen gërëm waaw di leen gërëm bu ko defee tamit mu mel ne euh, soxna Asiyatu si Jamil sama jigéen sama xarit jiitu na fi walaay booba sax soxna su egseeguma ci baas bi waaw mu mel ne it tabarkàlla imaam Sall it ñëw na fi moom it la euh, mu mel ne it maanaam maanaam maanaam Ibrahima Sow Ibrahima Sow tam yore autovidage yi fii ci deux voies notaires yi waaw Baye Ibrahima Sow moom pa imaam Mar moo ma ko présenté woon moom imaam Mar mooy moo jiite mbooleem imaam yi Géejawaay yi waaye Ibrahima Sow moom tamit teew na fi tey ak teewaay bu am doole nag. muy jambar moom tamit mang koy sante bu baax di ko soxna azir tamit sama jigen sama xarit mang koy sante bu baax diko ko ci tewayam bobu nga xamne fekkuma fi mom si dafa woyef wa wallahi kër maamam Faas ku ne xamna ne seen bis bi tay ji la yaangi deg astu sax tay mom dafa daf ma faral astu astu Diouf mi tay daf ma faral ndax mi ngi fi te neena day ndogo ndogondoog man kon nak tabarkal mu melni Muhammad Aydara momit legui la fi joge fi seigne moulay tok la togon momit di suñu xarit di suñu wëlëre di suñu lepp mom tamit ñing koy sante bu baax di kogaram, diko di konyana ñaanal yalla yit nag manam limu bëgg te di yootu euh, bu gëné ci mom rek te gën ci ñun ñëpp yalla nako ko suñu borom defal wa bu gëné ci mom te gën ci ñun yalla na ko suñu borom defal wa bu ko defé mom tamit ngi fedd suñu koléré ak mom khadim di sante tamit daayira soxna jaare yëpp di sante daayira soxna jaare yëpp waaw di sant daayira soxna jaare yëpp na fàttewuñ leen maanaam daayira yi fi teew buñ leen doon lim dina ëpp juróom fukki daayira yu soxna jaara parce que xaarante wuñ dañuy ñëw ziar yewee ko waaye fii li ma fi gis ci ay daayira yu soxna jaara ci géejaway gi ëpp nañ cinquante daayira soxna jaara yàlla xam na ko ëpp na ko ñëpp ñëw nañ kon nag daayira soxna jaara yi bu ma bëggee daayira soxna jaara sindiidi daayira soxna jaara Touba Daaru Salaam daayira soxna jaara toxfat daayira soxna jaar na bu ma bëggee lim tur yooyu day metti waaye na daayira soxna jaara yëpp xam ne sant naa leen gërëm naa leen am na ci daayira soxna jaara yoo xam ne sax bis bi dañoo bàyyi seen itte yëpp ñëw nekk ca togg ma nekk ca sese ya nekk ca nangam nekk ca nangam nekk ca nangam waaye daal sant naa leen bu baax gërëm naa leen tamit bu baax ci biir daayira soxna jaara yooyu maa ngi ciy profité waale Astu di la seedeel lu maire Aminata Kanté def ci Porokhane ji weesu daayira soxna jaare yi nga xam ne ñoo féetee Daaru Salaam yaa ngi dégg ñëpp daayira soxna jaara bu nekk lu ma fukki daayira yi soxna jaara man sax fukk ak benn laa ko defam waaye benn ba mujjul jàll waaye fukki daayira soxna jaara yëpp daayira bu ne yëkkati na ñaar fukki junni jox la ne la dimbali ko ci yoonu Porokhane moom nekku fi nag waaye jëf ju baax ku ko def nag nañ nañ ko ko seedeel def na loolu def na loolu ma sant ko ci bu baax na gërëm ko ci ndax man na ko defal ndax ñun ñii la war ñun ñii war dimbale suñu yaay yii nga xam ne dañoo formé ay daayira soxna jaara di ci liggéeyal soxna jaara yëpp lay buso maanaam moom lu mu leen defal ñun ñii la ko defal kon nag daayira soxna jaara yi am na nag ndax géejawaay daayira yi soxna jaara yi dafa bëri te fukki daayira bëriwul wax naa fii léegi ne juróom fukki daayira lu ëpp juróom fukki daayira ziar nañ ma fii kon nag daayira yi ci des tamit maa ngi leen di leewaat ci sama kàddu ne leen loolakat bu ak seegut ci ñoom it allah allahu bi nañ xaar seen wàll ndax dina ak seen jàmm ak salaam incha allahu rabbi maa ngi leen koy maa leen koy digaat loolu te di leen ko bàyyi loo waat xel mu mel na it euh, euh, ñi ñi nga xam ne nag waaw sëñ Xaadim Daaru Salaam de day sa sëriñ rek waaye fukki junni yoon juróom-ñett ndax tudd naa sëñ Xaadim Daaru Salaam wala tudd ma ko ñaata yoon laa présenté Serigne Cheikhouna ibnu Serigne Hamidou ah ibnu sëñ Modou Mamoun ibnu Maam Cheikh ñaata yoon kon naa ko waxaat ah ngi koy wàññi waaye déet wuyu maa ngi koy njëkkantu de waaye wax na dëgg de wax na dëgg ci sama xaw da ñaari sëñ Xaadim fi nekk sëñ naa mii sëñ Xaadim la waaye beneen sëñ Xaadim Daaru Salaam daa nekk nee toog. wala yàlla xam na ko waaw dama ko sama xel moo moo ko moo ko faay kon sëñ Xaadim Daaru Salaam man ñun ñu ngi lay sant bu baax moom it muy nekk muy suñu rakk ba noppi nekk ak Seydina Omar ba noppi nit ku yaroo yaroo yaroo yaroo Daaru Salaam koñ bi ñu bari xamuñu ko ndax yaram ak tegginam maa ngi koy seedeel bokkam yi di ko seedeel sëñ Seexu naam sëñ am yi di ko wax ne sëñ Xaadim Daaru Salaam nit ku baax la nit ku yaru bu ko defee ak keneen ku ma fàttale ngeen wax ma ko bokk yi sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp yàlla xam na ko bokk yi sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp bu ko defee mu mel ni damay sant dongo yi ma àndal rek jox Mawlana Chérif Hassan mu mu mu mu jottali kàddu Chérif Chérif Hassan maa ngi lay ñaan tamit soo tënkee ba noppi nga nga may Cheikh Mouhamadul Moustapha kàdduy cant yi nga xam ne suñu wajur sëriñ Modou Mbacke Ñaaxar moo ko yóbbante ci Chérif waaye moo ko yóbbante ci dongo yëpp it nag nga teewlu ko juróomi matewu ko gis nga fi ni nii man wóor na ma ne moom waxuma ko waaye xam naa ne ci ay programme yu bari la jógee door ak si man xam naa loolu ndax yenn saa yi ma woo ko mu décroché yaa ngi dégg bu décroché damay dégg jàng yi ma xam ne mi ngi ci jataay yu mel nii Chérif Ali daf maa waxoon ne ma day ñëw papaam dafa maa waxoon ne ma day ñëw waaye moom tamit jataay yi ñoo ko tënk ba mënta agsi mu yebal ko moom tamit jataay yi tënk na ko waaye xam nañ ne bis bi la loolu motax mën ta ñaka a bu ko defé nak xadim kon nga may ma benn minute ma sant sama daayira yépp dama bëgg nak buma ma leen di sant ngeen tàccu seen bop tàccu yi lu mu for a foor looloo gën waaw tàccuwaat leen seen bop daa tuuti waaw yéen yéen dafa dafa mel tabarkaale di ngeen di ngeen gën a yëngal bu baax waaye kontaane wu leen noonu ci seen bopp ñoom ñoom tabarkaale maa ngi leen di sant bu baax maa ngi leen di sant bu baax nag yàlla nga si la su ma waxee waa mouvement al islah nag moom damay dugal ci biir cant googu Pa Moussa Lo mii damay dugal Bachirou dama lay dugal yow Xaadim damay dugal keneen damay dugal keneen damay damay dugal Sidi jëwriñ Sidi saw Sangalkam damay dugal Xaadim Diagne waaye it damay dugal jëwriñ Pape njaay ak ñoom bàyyi faat yëpp du bàyyi kenn. mu mel ne nag kon <coughs> lu ma leen sant rek dama koy xeeb ndax yéen tamit seen taxawaay ci bis ni gis naa ni ngeen jàppee sañse ngeen ñëw doole poos ji teew na. te lu ma woote bu ma gestoo gis leen ci sama wet kon nag sant naa leen bu baax a baax a baax gërëm naa leen bu baax ñoom ñiy jël nañ seen wàll léegi ci kuréel gi fii waaye ñee dañ jël seen wàll léegi ci xiin yi fii kon nag mu mel ne loolu suñ tubaa rek la ndax suñ tubaa moo boole woon sëñ Mbàkke bu soog seerafaal du noonu kon ñii dañuy yëngu ca lee ñii di yëngu ci lee waaye nag maa ngi leen di xam leen maa ngi leen di xamal ne bu kenn foog ne li ngay yëngu moo gën la sa morom di yëngu <laughs> bu leen ko xalaat de bu kenn xalaat lool bu kenn foog ne la sa morom di yëngu moo gën yow li nga yëngu déedéet lépp a yam lépp sëriñ bi la te yéen ñëpp sëriñ bi ngeen di liggéeyal waaye li am solo xam nga mooy lana ku ci ne la nga ne nga fonk ko ba am ci ndam ku ci ne la nga ne nga fonk ko ba am ci ndam loolu rek a fi ne mais nag lii moo gën lee wala laa moo gën lii loolu amul de lépp a yam waaye nag la cay gën moom jàmm bi wala yaay faal bi moo koy jëfal boppam ca biir loola kon ngeen bàyyiwaat xel lool ma sant seen jëwriñ nag soxna Ami Bamba Mbay dafa sant léegi fees waaye ma koy santaat bu baax a baax a baax gis nga moom cantam ci man du jeex parce que gis nga wal këram yi am na ci doomam yoo xam ne ñëwuñu teew fii ci jataay bi waaye seen jëf jëf ju rëy la ci biir kër gi ci bernde yi ñu doon defal muy Seydina Alioune ak Amdi Moustapha te nekkuñu ci fii kon nag soxna Ami ni ma téye téye ko sama njaboot waye ba nopi nak buux njabotam ci man mang koy sante ci lolou diko ci gërëm bu baax a baax a baax di sante ñepp ne di gërëm ñepp ñu xalaat ne journaliste yi tamit fàttewuma kenn télé yi fi te yewé ko fàttewuma leen lay sante di la gërëm sa taxaway amna solo rafet na lool tabarkal Fall télé buma soxla wala radio buma ma soxla Fall laay woo téléphone Adja asu ne ko Fall soxla na nangam mu daadi mu daadi ne ma kar téléphone daal di ne ma diw sàngam ak diw sàngam ak diw sàngam ak diw sàngam confir confirmé na man nag damaa naroon su ma noppee yaa ngi dégg damaa naroon su ma noppee su ma noppee ñu tëj ma kaso baal ma sant baal ma mos ci après yow nga ñu ma ndax soxna mi ngi sant mujjee ko waaye dama ko gën a bëgg rek moo tax ma ma mujjee koo tere loolu rek la loolu rek la moom mu ngi nii toog moom tamit wax dëgg yàlla sant naa ko bu baax sant bokkam yëpp yaa ngi dégg dama ne ko xaadim man bu ma paree dañ maa naroon tëj kaso moo xam li may wax ne ma déet maa koy sant ma ne ko déet baal ma mos ci tuuti ah, ma ne ko déet bal ma mos ci tuuti après nga àggale cant bi waaw bal ma mos ci tuuti après nga àggale cant bi kon nak soxna nday tamit ñu koy nuyu bu baax diko sant diko ko c'est que nak problème bi tax ma faté ko du dara lu dama dama tamul di def lu melni sama soxna tewu ci bir jotaay bi dama ko tamul c'est la première fois c'est la première fois tay la ma sa am loolu tak tax tàcc leen ko yéen kon nak moom mang koy sant diko ko di sant tamit bokkam yëpp bokkam yi jóge nañ fu nekk ci dëkk yi fasantikoo ci Sénégal ñëw teewal na te yàlla ak jëmmam moo tax kon nag bokk yëpp tamit muy bokki soxna Ndey bàyyiwuma kenn maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp xaadim maa ngi sant waa gol bi Njaay yëpp waa ko sëñ Mbay Njaay gol bi képp xam ne njabootu sëñ Mbay bi moo xam mu jur sa waajur wala ngay ab taalibe maa ngi lay sant bu baax a baax a baax a baax di la gërëm fàttewu ma leen benn yoon ndax njabootu sëñ Mbaye Ndiago bi dañ maa jàpp ngir yàlla ak jëmmi soxna Maamy Ndiaye kon ñoom tamit mënu ma leen a ñàkk a beral ak cant bu ñu ma yàkkamtee rek dinaa bàyyi ñoo xam ne su ma paree maanaam maanaam gàcca man naa tax ma xaar suuf si dugg ci parce que te nañ ma noo xam ne mari de tali mosumaa gis ku ma téye nu mel noonu kon waa gol bi yëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm comme ni ma sante waa Daaru Xadim laay sante waa bi bu ko defé tamit di sant soxna ami jaay nak ci bir cant goo cant go xam dama ko ko beral mom dong yaangi ngi bu ko ken ndax bis bi tabarkal mom japp na ci li soxna Astou cede legi ci mom loolu mo nek ci soxna ami jaay nit ku yaru la nit ku dal la waye nit ku nit ku bëgg jamm te te bëgg lu baax kon nak maa ngi koy sant ci kanam bokkam yépp waye di sant nak ñi nga xamne ne ñom la bokkal gox bi yépp nak rawatina nag bokkam yi nga xam ne ñoo jugee ñoom it fu ne ñëw jàppale ko muy waa kër Adja a mbay waaw suñu waajur la di waajur soxna ma amee jaay waa këram yi sant naa ñëpp sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp sant naa maam Fatou Dieng sant naa soxna bu baax soxna Dieng bis bi lu bëri ci li ko wëlbati ren jii ba mu organisé wu wallaahi jëmmam la kon nag moom it tabarkal la sant naa ko gërëm ko bu baax moom soxna waye sante borom këram bi nga xam ne la fi jóge moy docteur ndjay nga xam moy moy moy moy médecin chef euh, bu bu bu bu moy directeur hôpital bu daru Darou Mouhty yaa ngi dégg kon léegi la fi jóge moom mang koy sante diko gërëm bu baax baax di sante sama wa établissement li c'est pas Bulleuse maa ngi sant ñëpp di leen gërëm waa lycée Patte d'Oie Bulleuse mënoon nañ ma jappé né sen collègue rek la ay prof espagnol ñofa nek anglais mat SVT PC e, nangam yang ini, Espanyol, Angle, anglais allemand chinois nangam Yumen, Nono, noonu italien bu ko defee mënoon nañoo wax ni ñoom prof Arala. la ñu mana ma ekol barek ke bolen, boole ñu waaye defuñ kiri loolu de bis bis bisa sujote, wali lise pada lycée Patte d'Oie Builders mabe dañuy andang nak ànd ak nag kijatai bi kon mangis santu sant lise pada Patte ca kë ku jiite muy madame kamara di ko sant ak si ci ñi nga xam ne ñoo nekk surveillance jaar ci censeur mi ngi fi gis naa ko jaar ci intendant mi ngi fi moom tamit gis naa ko ñu ñu ñu ñu ànd ak délégation bi yëpp ñoomi teew fi kon sant naa leen bu baax ñoomit gërëm naa leen soxna maa mi dem sama bàjjan fàttewuma ko so soxna soxna soxna nday ami jonn moom it fàttewuma ko ak ak ak bi nga xam ne moom moom moom la àndal Adja Yacine fàttewuma leen bu ko defee tamit mu mel ne fàttewuma tamit soxna Sali mi ngi fi def délégation moom tamit ànd ak waa waa nu mu tuddati du Grand Yoff de <laughs> ñooñu rek en tout cas sant naa ko baax gërëm naa ko ku ma ku ma bu ko defee sant jàngkati xasida yi sant jàngkati xasida yi àll jóob mi fi jógee Adja Assou àll yow yaa tax ma xam ko ci sa bis laa ko xamee waaye ku am kóllëre la bis bi saa su jotee manoon na ne àlla bu ko neexoon jàngkat bu mag la boo xam ne àdduna bépp a ko xam keroog bi mu cantee fii sërif dafa kontaan dane ko na nga ñëw sama kër yaa ngi dégg mu dem fa mu defal ko teraanga kon àlla bu ko neexoon mu ne balaa balaa sant damay toog fii baas bi fees dell àlla dóor a yëngu ngir ngir nangam ak nangam mais àlla du ko def àlla xam nga lan lay def danaan ma man 10 h lay ñew bu kamil bi wacce ma tambali bis bi ndax man maay wote kon àlla ku bax la Adja kon mang koy sante diko ko bu baxa baxa bax di sante jang keuti jàngkati yep nak waaw malik mang koy sante di sante communicateur traditionnel sante na len bu bax gërëm na len yeene ngi ni amna ñeneen nit ñu ngeen fi fekk bu ko defé sante na len bu bax gërëm na len bax sante tamit wa fami bay gëwel jang Serigne yow yaay khalifa bi sant na len bu baax fami bobu li ëpp ci mbolo mi ci ñoom lu ëpp samay talibé dañ ma bëgg lool japp ma lool sagal ma wormaal ma nak fuma gesto gis len ci sama wet kon sëriñ yaangi fi mam tierno ngi mam tierno ngi fi waye japp len ni sant na len gën sëriñ togal yañu taxaw yañu taxaw fi lañu yorop neew jëm Touba ñu ñu 6 heures du ngeen ko rop waa Ndar ñëw <laughs> Sénégal gépp ñëw Alaaji Mansour Mbaye ñëw Abdoulaye Mbaye Peex ñëw mhm. ñu ne ma nooy def man leen naa téléphoné si Cheikhouna nga ne ma fan ngeen koy denc ma ne Baqiya Astu Fall sant naa la ci tuuru daayira maam jaare bii nga xam ne Seydina Omar moo ko taxawal ci koñ bi fàttewuma leen yaa Adja soxna Adja Fat Bintu Samb bàyyiwuma leen bàyyiwuma kenn presse bi fàttewuma leen de Guédiawaye info gis na ah, eh, ni ngeen ma taxawo tabarkal yeen jàmm rek ngeen di am wa ñi fi jaar tabarkal jëwriñ pa Fall euh laay xam nga pa Fall ni wa te très bien mom rakam del magu Habib la mom mom ak Habib mom rakam ak ño ñoo ndo won nek egypte pa Fall mi ku mbokk rakam ju bay kon pa ci keur gi la bokk jëwriñ abou Fall waaw ndax nit gis nga kóllëre dafa am solo te boo àndeek ak nit mu jig la da ngay continuer fasanteem ak moom kóllëre Abdou bis bi lépp yoon la maa ngi lay sant di la gërëm ci sa taxawaay photo yi na rafet album bi tabarkàlla xam naa ni moom laf la cat law la cat subhanallah Abdou Fall Pikine du duma ko fàtte sama xarit koo xam ne moom tamit tabarkàlla waaw tabarkàlla daaw jéeg bi ma jugee bi ma jugee Italie ñëw fekk ñuy defaraat kër gi ci laa wut sama kër gële yàlla dogal ma te woo ko téléphone ne ko Abdou kër gi de maanaam dañ koy yeesalaat léegi nag maanaam dama bëgg dalluwaay ba keroog may wut kër keroog xam nga lu ma waxa Togo la ko fekk moom mu nekk ci mission ñu jotante whatsapp waaye ci saasa la ne ma demal ñu ubbil la sama appartement ma fekk fa lépp nag la màggalu daaw jee këram laa jugee màggali Touba bañ wàññeekoo laa door a sanc daara ja fee kon nak Fal, Fall ñi ngi lay sante di la gërëm di sante sa soxna yit nak waaw goor mom bu amé soxna su bax rek manam muccu na ñi ngi sante say rak tamit Jarga Fall Jarga momit Abdou def na lu am solo ci bis bi ma nga la koy sédel momit loxom ñew na kon dal tabarkallah bass bu rafet bi Moustapha Dia moko def waaw Moustapha tamit dina ko sante di ko gërëm bi ñuy ndogo ci biir mo dakk bi bi ñu war a ndogoo bi kon nak Dia mom tamit nga Dia entreprise baas la yor moom it maa ngi koy sant di ko gërëm waaye it Adja Astou moom mi ngi may jottali cant ci yow mi ngi may wax tamit yéeneem ci yow barke alxuraan Moustapha tamit yaa tax ma xam ko Moustapha dafa baasal Adja Astou ma ñëw gis baas bi tabarka tabarkalla fasanteeg moom kóllëre ba tey mu di ma baasal moom tamit mi ngi lay jot li Baye Mbaye Dieng ak yéen ñiy cant ñëpp Moustapha moo leen di baasal bu beneen yoonee kon nag sant naa daayira yëpp sant ñëpp may leen ma nag ma jox Chérif kàddu gi. bu ko defee léegi mu nuyu mbooloo mi jottali ay kàddoom euh, ci ndigalul kilifa Mawlana Chérif Mouhamed Ali dara su ko defee euh, délégation bi mu àndal tamit ñu ngi leen di nuyu ñoon ñëpp su noppee ñu jox Cheikh Mouhamadul Moustapha mu ñaanal jataay bi ndax ndogu yi fi ne nii yemb na. ah wax waxal nga ko li ci yokk rek moom mooy dëggal nga sa maam Cheikh Ahmadou Bamba li mu ne moom mooy xaadimu rasul da xaadim rasul de du dara lu ne dem na ci keur yonentu ba bindu fa nek fa mindaan ngir xewal yi nga xamantene yalla da koy jox góoru yalla yi te neena xewal yep ci bir keur yonent ba la suñ koy joxe man ma fekk fu ko ndax ñu fekk ma fa ndax mo man caa am sama wal neena na yoyu sa mam taxaw motax li du la bet li nga def ni du ko bet ci mom timit ku bax nitu yàlla dëgg dëgg dëgg mooy mën a seede li nga seede ñàkk ki ñaan dong mooy tax nit mën a taxaw am maqaama bu la yàlla jox nga gis ku la ëpp maqaama nga daal di koy seede ci biir say taalibe Chérif nag moom nitu yàlla la loolu mu def mu wax sëñ bi daal koy seede du alal ju mu am du alal mu denc. waaye moom lépp lu ñu def ci lislaam nee na moom nga ko defal ndax toolu maamam ngay bay soo ñëwee ne ko sama maam laay defal mu xool la ne jàkk ci li ko yàlla may moo xam ne dëgg nga te def ci lislaam nee na la nga fa fekk la rek li nga wax tam dëgg la ci suba ba léegi ci ay programme lañ nekk fi ñu mujjee moom mooy Kër Massar ndax maire ba moom moo fa ñëw ànd ak njabootam yëpp ne Chérif il faut nga ñëw fekke sama bis bi parce que dafa am lu ma bëgg a seede ci mbooloo bi ñu demee moom lan la fa wax dana maam bi ma xamee shérif boobu nekk ma woon maire nekk ma woon dara léegi député maire la waaye li ma bëgg a séeréel mbooloo mooy bi ñu demee bay ba bëgg def élection yi ñu ne kan lañu war a tànn pour présenter ko candidat dañoo jël juróomi nit ñëw ba ci Maolana Chérif Mouhamed Ali Aidara ne ko jël juróomi nit ñi de lañuy ñu laam-laame kan lañ ci war a présenter pour mu nekk maire nee na ne jàkk xool leen daal di tudd sama tur na kii la su ngeen ko présenté yeneen gagné moom mooy nekk maire nee na looloo ko def maire. mu ne loolu il fallait tey wax ko ci kanamu nit ñëpp boole ci tam li nga seede foofu mu seede ko maanaam Chérif liggéey li mu leen di dimbalee ci ngir yàlla ci néew ji doole yi ak liggéey bi ñu fay def te li waral loolu Chérif nee na moom lan moo ko tax a jóg dafa wuyu. wote mamam rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi yonent bi waxe bi yàlla ne wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani qawmi yàlla mo wax ci alquran ne du ma yónni benn yonent nañu wajal ñew sharif lolu moko taxa tax a jóg loolu mooy musdahir musdahir mooy li nga wax léegi sëñ moy mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dane na ngeen liggéeyal sen adina comme ci du ngeen faatu ba mu te liggéey boobu noonu jigéen ñe ci man fi mu nekk ni groupement yi liggéey bi ñuy liggéey képp koo xam ne tey boroom kër nga tëdd nga nelaw sa jabar nga yaakaar ne ëllëg soo ko joxee dépasse na ko doyloo wala ëllëg na ci yokk dara te ko may mu ne da nga liggéey sa doo faatu ba mukk waaye ba ngay def tam da nga liggéey sa alaaxira comme suba ngay faatu il faut nga boole ñaar yëpp l'islam loolu la santaane loolu moom moo ko tax a moo tax ku mel ni Serigne Cheikhouna su ñëwee ne ko damaa am ay daara damaa am lu mooy bëgg liggéey sa toolu maa mu am la mu am jox ko mer bee nek fele tam ne ko man tam damay liggéeyal àdduna dama am ay njabot te njabot gi mënuma lu bari ci mom dama bëgg jappalé le buñu am ñu am luñu japp pour mëna a liggéey mu dal leen jappalé waye du mu am du lu mu denc lepp da koy tegg rek ci lool parce que nee kep ku do ne da ngay liggéeyal l'islam rek ci tolu maamam ngay liggéey su sañon lool ngay def mom mo koy def kon nak lu lim ci mën rek lay def damay jéxal ci ben xissa shérif nee te lool mu ngi la koy dénk diko ko domam ji nee lepp def lepp kenn mënu waye waaye ne ku nek def la petit mu ndaw ma defoon ñu nako ko la mu ndaw mi def mu ne dekk Allah ba dafa lak daay gu mag Allah gep lak ben garab rek dess petit yëpp daal di ñew lakar ci kaw garab bi petit petit bu tuuti mo gëna tuuti ci petit di joge ci garab gi di dem ci geej ci jëlé fofu ben tok ndox sami ci sa waraw yenn petit nan ko yow ya mëna sonal sa bop yow li sa petit ndox mi sa tok ndox bi dafa mëna fay sa war mu ne waaw xam naa ne mënu koo fay waaye damay def sama li ma war a def damay def sama devoir mooy li ngay def ñàkk gi fi ne ñàkk xam-xam gi fi ne wéer gi fi ne amaana mun leen koo faj lépp waaye su ku nekk defee sa wàll da ci des yàlla daat koy mottali nit yu yàlla yi nag loolu la ñu xamoon mooy moo tax képp ci ñoom dangaa dem takkoog waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour wuy woote bi yonent bi woote woon ne su ma fi génnee àddina na ngeen topp alxuraan bi téere la du wax waaye su ngeen bëggee xam li téere bi dox na ngeen topp sama njaboot ndax ñoom la yàlla waxoon lastafa adama wa nuuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alamin zurriyatan baaduha min baad loolu moom mooy looloo tax chérif taxawaay boobu la taxaw nitu yàlla yooyu nekk ay sëtu yeneen nga xam dañoo tasawro ci àddina bi yëpp seen maam dénk leen mission moom dafa nekk ci mission boobu moo tax su gisee ku mel ni Seex Seexuna Mbàkke gis liggéey bu muy liggéey ci lislaam mu mën a ànd ak moom moom it yàlla xeeñtul ko mu mën a dem ànd ak Chérif Mouhamed Ali Aïdara ba lii lépp xew seen diggante waaye lii lépp bu leen ko xool bu leen ko gis xoolee ne yàlla yi fi yàlla dong la xool leen ne yonent bi rek la xool leen ne ay maamu Chérif muy ahlul bayt yàlla waxoon te sëñ bi doon wax doon leen fàttali leen muy Ali ibn Abi Talib Hassan ak Hussein ba ci imam Mahdi mi xam ne mooy suñu imam jamono xool leen ci ñooñu rek su ngeen xoolee ci ñooñu lépp lu ngeen def ci lislaam di ngeen ko xeeb te tam da am yàqin na lépp lu ngeen ci def yàlla dina leen ko fay ndax yàlla moo ne i'malu eh, fa sayarallahu amalakum wa rasul wal mu'minun gis def leen yàlla dina gis seen jëf ak ak yonent bi ak mu'minun mu'minun yooyu yàlla wax moom mooy waa ahlul bayt fukki imaam ak ñaar yooyu nga xam ñoom lañu yàlla yonent bi bàyyi seen su suñu ginnaaw pour ñu war leen topp te ki ci nekk jamono ji muy imaamul mahdi te shérif nekk taalibeem nekk tamit ci service am nekk soldaaram loolu moom moo ko booleeg sëñ Cheikhouna Mbacké yàlla na li nga ñaan yàlla ko yàlla def yàlla yàlla yàlla yàggale ànd bi ba liñ liñ ci soxla lépp ci yoon lislaam yàlla na ko yàlla def ci barke Seydina Muhammad ak njabootam salawaatullaahi wa salaamu aleykum foofu laa doon mujjee Chérif nee na bu ma fàttee fàttewu ma de xam nga tubaab dana last but not least anglais yi ñoo ko wax mu ne bu ma fàtte sa mag ji Cheikh Mouhamadou Moustapha ndax li tax ma ne dama koy mujjee dafa am loo fi wax ne rus ngaa wax lu dul dëgg ci kanamam mais loolu la ko wax dama la ko mën a seet ndax fekke naa ko ba ñuy dem Touba di dem di seeti sëñ Mouta déedéet avant sëñ Mountakha sëñ Sidi Mokhtar dañuy jaar ci sëñ Mountakha pour dem fa kër seen kër la ñu dem moom moo ñu fa teeru daa ngay fàttaliku bis boobu waaw. moo ñëw jóge kër ga ñëw jël si ñu ca yaa ngi fàttaliku ca essence ba ànd ak ñun ba ca kër ga dalal ñu ba pare préparé terrain bi yëpp yëpp yëpp yëpp ñu doog a ànd ak moom ak yéen dem ca sëñ Mountakha dellu si waat dellu loolu li ngay wax ni ko man mun naa ko seede loolu dugg bu wér pëngal moo tax nit lépp lu muy wax rek na nekk lu nekk dëgg parce que am na ñu ko mën a seede am ñu ko mën a wedd magam ji saalix Chérif nee na saalix kon li ma bëggoon wax sax dama koy bàyyi nee na saalix saalix nag moom dafa dafa dafa dafa dafa résumé lépp. lu teeg loolu. waaye doo yow da ngaa def wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis ma ne ci barke Mawlana Chérif Mouhamed Ali Aydara ci barke maamam rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci barke maamam Imam Ali ci barke maamam Fatimatu bintu rasul ci barke maamam Asan ak Huseyn ah seen ànd bi li ci ñaan yëpp yàlla na ko yàlla def ci des nag xanaa Mawlana. nee na daal moom dara mu jox kilifa jox sa mag pour mu daal mu daal koy jël. na di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool te mission àgg bu baax a baax Serigne Assane yow itam sëñ Moussa Mbacke nee na yàlla na suñ borom dooleel la bu baax a baax doggale seeni jéego ngeen àggale seeni jéego ci askan wi nee ginnaaw loolu nag. sëñ Moustapha nee na mi ngi sant rakk ñu bokkal njabootug sëriñ Mouhamadou Mbacke ñaaxar di leen jotle ab nuyoom ak i cantam ak ñaanam nee mi ngi am mbégte de ak xol bu sedd ak xel mu dal nee na mi ngi jaar ci kàddu sëriñ Xaban Mbacke mii seen kilifa moom mii mu yor kàddoom di ko jot li ci turam nee sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax ci seen taxawaay ndax mënoon ngeen a sori wax ne gisoo leen ñu leen jege ci ay bokk walla ay kilifa ngeen am weneen doxalin waaye suñu Moussa nee si suñ seexu naa alhamdulillah nee na loolu de yéen njaboot gi dalu leen tey nii rek kat la mën a demee ndax kër gi ngeen jóge bokk yi fi jël kàddu yëpp wax nañ ko ku leen xam ci diina nga leen xam jub jàngale yare muy seen wàll ci xidmatu seexul xaddim nee na daari alquran yéen fay taxawal nee na ñun ñëpp turi daara ya ca xidma ba lañ koy idaafa ngir na mooy seen wàll ci biir liggéeyub Serigne Touba bi nee na kon yéen a ngi def seen wàll si musiba nee na ñu ngi leen ci sant bu baax di leen ñaanal yàlla mu dëgëral leen àggale seeni jéego bu baax a baax. mboolem jaboot gii ngeen àndal liggéey bi ak bokk yi ñëw wisi leen sëñ Saba nee na ñoom ñëpp bëggoon na ku nekk mu jaar ci aw turam waaye xanaa waxtu wi moo xat du ko mayeeti nee mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci turu bi ak di leen ci jottali ay ñaanam nee na soxna Astu Ture nag. sëñ Moustapha nee na la beral ak cant ndax sëriñ bi nee na jaboot de lum la sori sori li ko wala waxee génn dawkat bi gudd na waaye loo ci laal borom yëg ko nee na kon loola dal na sëñ Mouhamadou Mbacke Ñaaxar nee na yëg na seen taxawaay ak sa borom kër sëñ Samba Ale sëñ Modou Mbacke Ñaaxar yëg na seen taxawaay ci njaboot gi. nee na mi ngi leen di sant leen ñaanal nee na waxtu yi jot na nee na ñu sang sangi sant daayira yi ak waa ñaaxari bi teew yëpp ak taalibe yëpp ak bokk yëpp ak dëkkandoo yëpp surtout njabootu Baye Mor Fall maam Ami Ndiaye nee na ñu ngi la ciy jiital bu baax sant ñëpp gërëm ñëpp ñaan yàlla suñ borom liggéey bii suñ borom gërëm ko te daray lu yàlla gërëmul bañ cee bokk te jéego yi ngeen ci dox yëpp suñ seexu naa mbooleem ñi ci dox ñëpp ak liñ ci jëf yëpp suñ borom nangu ko te gërëm ko asalaamaaleykum wa rahmatullah nangu leen ñaan te wax نستعين اهدنا الصراط المستقيم وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إني أتوجه إليك بنبيك يا نبي الرحمة محمد وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين اللهم لين لنا صعوبتها اللهم لين لنا صعوبتها وحزونتها واكفنا شرها فإنك الكافي المعافي والغالب والقاهر اللهم اقض حوائجنا جميعا اللهم اقض حوائجنا جميعا واحفظنا واحمنا بحق فاطمة الزهراء وأبيها وأمها وبعلها وسر المستودع فيها يا الله آمين يا رب العالمين